dañoo wax ni nag tey jii incha allah rabbi jataay tey bii li feeg lii li jënti ko wut ba alal ji dellu ci loxoy borom lii du dakk buntu sëñ Mbacke Madina moo tax sëñ Fallou dagg ko jox ko soxna ummi Mbacke ginnaaw bu mu jotee ndigal ci na jël kër gii ci sëñ Mbacke Soxna Lo jox ko sëñ ba pare kër gii nag ginnaaw bu sëriñ Fallou nelawee sëriñ Moustapha mii di ab doomam ak yeneen tu tànk yoo xamante bi ñaar la ñu jigéen di ay parental ba fi sëriñ Fallou di di bàyyi ko ginnaaw boobu ba fi mu ne xamuñu ci kër gi dara ñii ko dëkkee moomuñu ko sëriñ bi màgg na lii ndénkaan la du ndono ndénkaan la dafa am pas-pasub sàmmal ko sëñ Fall mi ko ko dénkoon ba fekki ko man nag ci Kabou Fall mii ma nekk sama ginaaw ci lay tàmbalee teel bi sëñ Mbàkke Madina la yaakaar sëñ Mbàkke Madina sëñ Mbàkke Madina yaxan ko bindu ko mu leer naññi mu teel bi sëñ Mbàkke Madina war a am courage ñi ci des nag ñoo ngi nii kenn ku ci nekk yaa nga ca sa kër tëdd luye place bi di ko fayee di lekk wala wala yow mi koy fayeeku sax moo ma goon sa bàyyi ko man mu dee nga donn ko ba pare wane ni moom du doon alli baayam loolu mënta nekk dañoo wax nag tey jii incha allah rabbi jataay tey bi li feeg lii li jëlti ko wut pa alal ji dellu ci loxoy borom lii du dakk ay donga daara lañ te daara ji lañ jóge nawet jotagul ruujeeguñ am nañ jot am nañ jot am nañ jot li feeg lii leerut duñ fi jóge wala bis yàlla sàkk place yi day tëj ku seetaan da nga ku artuwul da nga atte te buñ fi ñëwaatee façon bi ni ñëwee dana wuteeg bii tey nag tojuñu place taaluñu place baariwuñ mbett defuñu dara danoo ñëw wax leen ak suñu doléance wan leen ni leen ñii ñoom moom yëf fi buñ bu leerul nag bu ñu ñëwaatee na ñëpp seere bu ñu ñëwee luy arme luy métal luy matériel danañ ko indaale te luñ ci am danañ jël. nee na bis naka tey man mi moom. Serigne Moustapha nee na moom mi nga xam ne mooy nondol Cheikh Mouhamadou Fadal moom Cheikh Mouhamadou Moussa moom Serigne Touba te nekk ca kanam tey. ñoom ñi nga xam ne moomuñu. nee na ñoom ñi nga xamante ne si moomuñu. sëñ tubaa jurut seen maam. sëñ tubaa jurut seen maam. jurut seen baay. jurul leen. ñoom la jaral ñu gar seen bakkan. nee na comme ñoom la jaral ñu gar ci seen bakkan. moom mi sëriñ tubaa jur Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Fadal jur Cheikh Mouhamadou Moussa mu jur ko. lu mu leen jaral. nee na moom lu mu leen jaral. moom jaral na ko lu ko raw. te nee na daa fas yéene. man fas yéene maa toog ñoom ñuy xëy di ubbi. nee te fasul yéene toog ñoom ñuy ubbi place di ci liggéey ak di ko luyee ñu di leen fay ñu tëdd ci seen i kër.